bisimilah. asalaamaaleykum asalaamaaleykum patriote Fogny patriote fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant may méttitulu li am mar bi passé ba tey mooy lan mooy tuumal bu ñu tuumal président Ousmane Sonko neexuñu tey neexuñu ëllëg mhm. sama wax du sori waaye li may wax damay wax ci tur bépp patriote Fogni ci commune Sindian ci seen tur lay wax ñun duñu tooñ Ousmane Sonko tooñul kenn deful kenn dara lu muy taxaw mooy Sénégal yëpp nekk benn ñu tabax beneen Sénégal bu baax pour ñëpp gis ci seen bopp loolu moo tax mu am ñaawteef bi ko gaay di ko tuumal nii tuumal bi koy tuumal nii neexuñu tey neexuñu ëllëg képp ku bokk ci tuumal Ousmane Sonko bii na xam ne ñun tamit jóg nañu ñun amuñu fetel amuñu jaasi amuñu dara waaye dinañu dellu si suñu cosaan dellu si suñu bois sacré def lu ñu man képp ku ci bokk mu xam ne laal na laalaage duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg ku nekk na ko xam ci turu patriote yëpp lay wax man Fatou Binetou Sané coordinatrice jigéenu Pastef commune Sindian man may wax te li may wax ni ñun ñëpp ñoo ko déggoo ñun ñëpp ñoo ko mànkoo dañuy dugg ci àll bi def lu ñu mën te bu soobee yàlla ak ba képp ku ci laal bu ñëwul tuub ñun ñoo defoon lii lii lii moo tax dina ko gis bu soobee yàlla yàggatul dara amul du am sa semaine ku nekk dina gis ku nekk dina gis dina gis loo xam ne mosu koo gis dinañ xam ne laal nañu laalaage ñun tooñuñu tooñaale wuñu falaa yem ak ñoom maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant metti nañu lekk sax mënuñu ko merci beaucoup nuy naa ñëpp di sant ñëpp